soxna mi dafa ñëw ci koñ bi fekk suñu koñ bi ñu manqué ay làmp manqué ay poubelle manqué ndox mu ne man de bi ma fi dëkkee léegi yàggul waaye gis naa li ngeen di jànkoonte te xam naa ne bëgg ngeen liggéey kon nañ leen ànd kon nag ñu naa soxna moom mi mii fas yéenee liggéey Serigne Touba. mii moom te mu ñëw woolu boppam bëggal ñu boppam bëgg ñoo dimbali tax mu ne damaa bëgg ngeen booloo àndandoo ma ñëw fekk si leen. ngeen wax ma seen jafe-jafe ak seen bëgg-bëgg ma def ci yéen li ma man te am nañ ci yaakaar ndax ku la jox ndékki jox la añ bu la diggee reer nga war ko engagé mu engagé li jiitu mooy nit dafa war di jëfandikoo akum xelam rawatina bu meree fii jamono bi toll ku ne xam na déclaration Cheikh Mouhamadou taxam Cheikh Mouhamadoul Bachir yàlla na fi yàgg ci wér barki démb bi muy julli ci Masalik li mu wax Macky Sall ca daf ko répété ca màggalu Tuubaa bi Macky ñëwee di ko sant si mu ne ko man maa la war a sant ndax benn dafa naa ne amatuma aajo ju ma mën a laaj sax ju ju may ñaan suñu borom amatu amatu ko woon ju jaral dem laaj ñaan suñu borom li mu bëgg ci adduna ci soxla sa adduna ñaanal defe na ne amatu ko woon a ndekete dese na benn muy Macky mu ne ko nag bi ma la booleeg Serigne tubaa laa ci noppi woon loolu ñi ma yilif boo gisee mu di ko wax publiquement nit ñi di ko dégg message bu ñu war a décoder la nit ñi nag dégguñu message boobu te sëriñ bi nag am ak moom ci bëggam xam ngeen nu mel bari ko bu diis boo teg ci mbartal booba ma xëyee bëri ko bi dem booba ma xul bëri ko bi dem ndax leeral na ko dafa ne lii ñu yor du nguur du buur ngërëmal yàlla moo koy maye mooy taw mooy mooy mooy xéewal kon li ma leen di soññ yéen ñu dëkk ci dëkk bi ca yaakaar sëriñ bi ànd ak moom nekk ci nit nag du ànd ak moom di ko fakkatal sëriñ bi joxoñ na mu magi la nu joxoñ ndax li mu wax dafa leer ba ma la dénkee sëriñ bi laa ci noppi ku sa taalibe dëggu ci jëlaw àdduna jiital ko ah loolu nag lu ma ta seet lu ma ta jàngat la du obligé wu kenn nag damaa wax loo xam ne si ku am xel borom xel yi laay waxal ndax alxuraan sax buy wax dara borom xel yi laay waxal kon ma bëgg soxna moom dafa wax ni nanu delloo si suñu xel settantal li ñuy def ndax réew mi fi leen dëkk mënuñu koo génn te it jàmm dafa gën lépp te sëriñ bi nu am yaakaar ko fii ci adduna bi ñuy dund ndax demagul àllaaxira yaakaar ko àllaaxira kon fi mu nekk fi ñu nekk ci àdduna joxoñ bi mu joxoñ dafa bëgg ñu dégg décrypter message boobu mu joxe ñu mën koo xam. bi mu fi toogeek léegi yàlla ko fi yàlla bàyyi ci wéral ko li fi jot a jaar ci yu tar ca mënu ci génne corona bi gis ngeen ko adduna bépp jaaxle woon na waaye dëkk adduna bépp d'accord nañ si mu taa comportement bi ñu ci comporté woo ak yeneen ak yeneen su ma ko doon lim du jeex kooku nag bu la nee nii joxe bu joxeñee ndax dafa yilif mbooloo ci ñëpp maasi wuñ jub kon bu joxeñee ab joxeñam sunu intérêt la ndax moom noppi na am na yàlla am na yonent bi am na Serigne Touba kon buy wax sunu intérêt bopp tax nan dégg waxam ji ca xam lii ñu wax ah, xam xamal li mu ñu bëggal lim ñu bëggal mooy njariñul àddina rek ak njariñul alaxira kon loolu la soxna moom yi waxoon ni yéen ñi xam ne yéen ànd ak soxna moom bu ngeen jógee fii waxuma kenn ku nekk de fagaru yéen moom am naa rafet njort ci yéen mais dama bëgg kenn ku ne lu mu gàtt gàtt mu fexe convaincre fukki nit ànd ak moom ci soxna moom yi ngeen àndandoo liggéey bi ndax lu mu gën a yaatu gën a baax. nuyoo bi nag ñoo koy jiital si suñu rakk bi muy soxna moom yi mi nga xam ne soxna la si ñun wante nag ñoo bokk moom Serigne Touba yàlla dogal tey fii ñu nekk muy Touba nga xam ne mooy suñu dëkk gi nga xam ne moom lañu ñu yàlla euh, moom la yàlla séddee muy Serigne Touba yàlla dogal nag ñu nekk fi fan yi yépp si sancaan yi ak yenn mbootaay yi di saafanteeg ñoom. di leen jàppale suñu kéemtalaay kattan jàppale boobu nag naa si ñëw tuuti ngeen baal ma si nuyoo bi nag comme ni ma ko nuyoo soxna moom yi di ko nuyoo Serigne Modou Rokhaya mi nga xam ne mooy kilifaam ñu bokk sëriñ Bassirou ñoo ngi koy jox wàccuwaayam te di ko siyaare muy sëñ Modou Rokhaya ginnaaw loolu ñu ngi àndal si délégation bi nga xam ne tey yéen soxna yi fii muy. muy ndaam gi nga xam ne tey lañ ñëw yéen ñi seet ngeen tasante fekk yéen soxna yi yi nga xam ne ay mbootaay ngeen yu fasu benn say ànd si ginnaaw soxna moom yi ma ànd si délégation bi kuñ naan Serigne Saliou jaxate moom Serigne Makhtar moom Serigne Saliou moo nekk nii sama wet di liggéeyal président Macky Sall liggéey bu rafet si dëkk bi ndax doomu dëkk bi la mhm. Serigne Abdou nekk si wetam moom it di ko jàppale si liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey président Macky Sall am na ñaar ñoo xam ne naa leen naa leen cité muy Serigne Minicar mu Serigne Saliou dafa am lu ko gàllankoor moo tax ñëwut tey te loolu mu ngi ci liggéey ba si beneen fànn googu ngir président Macky moom sëñ Minicar mu Serigne Saliou ak Serigne Mohamed Silla moom it mu Serigne Saliou ku baax mu ngi si liggéey bi fii ma wax ak yéen si Touba nekk si beneen liggéey boo xam ne. président Macky Sall lañ koy liggéeyal moog sëñ Minicar kon soxna si yéen yéen nga xam ne yéen laa fekk si fii di ko eh, kàddu gi di ko jox soxna moomi mi mi nga xam ne bu mu doonee suñu soxna suñu xarit la suñu rakk la te yéene mooy liggéeyal Serigne Touba ndax dëkk bi daa am ni mu tëddoo nag ni mu tëddee lépp mooy Serigne bi li mu fi aaye si wàllu yëngatu si wàll bir wi loolu lépp dañ koy sóoraale. wante nag seen taxawaay si ginnaaw soxna si dañ leen si ndokkale di leen si sant di leen xamal ne kii ngeen àndal de man de waxuma ko wante borom këram muy sëñ Modou gërëm na ko kon boo leen ànd ak moom di xencuti Serigne Touba ndax lu ko yàlla boole Serigne Touba ma leen di wax yéen soxna yi ngeen ànd way ànd takk nekk ci ginnaawam ndax lu baax rek leneen yéene bañ nekkee si dëkk bi ànd ak ñoom Serigne yu di def tournée si association yi nekk fii muy famille ak mbootaay yéene gi mu am si yéen ñii moo tax mu ne ma sëñ Xaasim waa koñ bii ma nekkal de ñu am pas-pas lañ ñu am yéene lañ te jigéen lañ yu mën góor foog nga gersu leen jàppale leen seen nekkin ak seen taxawaay ñu mën a nekk seen kër nekkin seen wetu jëkkër nekkin wu rafet. Mm-hmm. kon loolu maa leen koy seedeel yéen soxna yi si soxna si yi nga xam ne muy soxna ma moo ko kon nag maa ngi leen di sant di leen ñaax ñaax gi ma leen di ñaax yéen soxna yi fii lañu am muy tuuba ñaax gi ma leen di ñaax mooy ngeen ànd si ginnaaw soxna moom yi ngeen jàppale ko te moom da wax dëgg yàlla bañ waxtaanee nee na ma ki ngay jàppale muy président Macky Sall am naa si moom cofeel xam naa fii nga xam ne moom lañ yaakaar muy Cheikh Ahmadou Mountakha ni ko sëñ Bass waxee léegi fi mu teg président Macky Sall ma leen koy wax yéen soxna yi bari na ñoo xam ne dañuy wax rek di si nit ñi naan président Macky Sall joxut wàccuwaay waa Touba te lu ko sëriñ bi wax du ko def loolu ma leen di wax amut te dara lu si dëkk ndax yàlla def na sëriñ Mountakha am na fu mu teg président Macky Sall président Macky Sall am na fu mu teg sëriñ bi te mooy suñu yaakaar wan na ko yar war na ko teggin te lu sëriñ bi bëgg président Macky Sall na na ko fekk si jàppale ko si liggéeyu sëriñ Touba bii. ma leen koy seddale yéen soxna yi président Macky Sall fii si Touba ba ko yàlla dénkee réew mi muy liggéeyal Sénégalais yi autoroute ila Touba yéen soxna yi te dëkk fii Touba Sénégal réy na de wante fii la ko def boo jógee Dakar di ñëw Touba da nga teel a agsi te loolu kan moo ko def muy président Macky Sall defu ko Abdou Diouf defu ko Ablaye Wade defu ko wante moom la ko yàlla wërsëgale mu jox wor ma Touba def Ila Touba googu muy autoroute bi. dëgg la de. la ma see dolli yéen soxna ngeen dégloo ma xel te bañ maa dégloo leneen ndax damay wax ak yéen te li may lu ma gëm la te boo leen ibbee seen bët dégg seen nopp na ngeen dégg. la ma say dolli mooy hôpital bi te ñaanuma yàlla benn soxna am tawat tawat boo xam ne da koy gàllankoor wante hôpital bii mu leen defal Sénégal rëy na de Ndakaaru mooy capitale bi fii mooy deuxième capitale te man mii di wax ak yéen dem naa si àdduna bi fu ma si demut amut Afrique gii benn la fi muy hôpital bi mu leen defal kon loolu rek war ngeen a tax ngeen xam ne président Macky Sall mu ngi leen di taxaw mu ngi jàppale waa Touba la ma say dolli mooy assainissement bi te ñu ngi jëm si nawet milliards yi fi président Macky Sall dugal waxuma ko porte-parole bi nga xam ne moom la Serigne Mountakha jiital moo ko wax si làmmiñu boppam ne benn président defu fi milliards yi fi président Macky Sall def kon leen soxna si nag loolu bu leen dayu dara du leen dayu ma siy dolli ne mbedd yi yaatu yi nekk biir Touba yëpp président Macky Sall tëli na ko lamp yi nga xam ne am na koñ yoo xam ne courant bi ak siwu fa loolu c'est normal loolu président bàyyi na ko xel wante yenn quartier yu mag yëpp président Macky Sall courant ba àgg na fa mu ngi jàppale famille si wàll financement ak wàllu taxawu leen si yenn secteurs yi nga xam ne dañoo ma dañoo euh, manci dañoo nekk si gouvernement bi président Macky Sall mu ngi leen di soññ ñu jege jigéen ñi jege ndaw ñi pour mun leen a taxawu te loolu ñun xam nañ si dara kon tey bu ñëwee si yéen mooy jàppale leen niñ koy jàppalee yenn mbootaay yi nekk sancaan muy fexe ànd ak yéen jàppale leen suñ kémtalaay kàttan si turu soxna moom yi ñi nga xam ne moom moo nekk sama wet na ngeen ànd ak moom ànd ak pas-pas bañ a dégg ñi nga xam ne dañuy ñëw di yàq te seen intérêt personnel muy opposition bi dañ leen di diaboliser ak nit ñi ma leen di xamal ne liñ suñu yéene muy président Macky Sall bu législatif yi ñu xam ne mu ngi dëgmal ngeen jël seen carte électeur moom leen di ñaan ngeen jox ko président Macky Sall wooteel ko mu am majorité assemblée loolu ñoo ngi leen koy ñaan. di leen xamal ne seeni soxla ñëwuñu comme ni ko yenn politiciens yi ñëw di ko def dañuy saafanteeg yéen si saa si ni ñuy wax ak yéen ne nañ yëkkati loo xam ne duñu wax rek dem dañuy teg yëkkati loo xam ne dañ koy teg seen loxo tàmbali la. fas yéene na ànd ak yéen jàppali leen xool seeni soxla si taxaw guddi ak bëccëg te loolu day am ngeen baal ma tuuti balaa may ñëw si loolu démb damaa gis opposition bi di manifester Dakar ma am lu ma si bëgg a leeral tuuti dasee am kenn koo xam ne laay cité mm, muy abdu Mbacké di ko xamal ne dëkk bii ñu nekk ëppalewu fi kenn gënu fee doon kenn ak taalibe ndax bu dee Serigne tubaa ku nekk xam nga fa la yàlla boole si Serigne Touba moom nag li ma koy mën a wax ab taalibe dong la mën a doon si dëkk bi di ko xamal ne wax ju ñaaw dëkkut fa mu jëm fa mu jóge la dëkk kon na xoolaat ba boppam moom Abdou Mbacké moomu di ko xamal ne la won noonu wonni na maa ngi moom si dëkk bi fu mu teg tànkam nanaa ko teg sama tànk te lu mu baax nanaa ko ñeer loolu moom Abdou Mbacké na ko xam di ko xamal ne soloom bi mu solu démb damaa am kersa damaa rus xam naa nag pëstéef bi muy tux balaa muy dem moo ko jàpp ba mu demee mu ngi mel ni jéegu kinaara boo xam ne dafa ëmb moom la sol moo tax ma xoolaat li muy sol moom Abdou Mbacké moom di ko xamal na jox wor ma jigéen ñi ndax jigéen ñi yàlla da na a wormaal war naa xool sa la muy wax naan jigéen ñi dañuy dem si yenn rendez-vous ñu leen di def na ko suñu noonu moom joxut yaayam wor ma na xam ne jigéen moo ko jur am na lu ma xam nag si waajuram su arrêté nanaa ko génne wax ko te bu boobaa dootul xajate ci senegal kamiy àndal muy gone gu ndaw muy tojoog moom ci néeg bi xam nañ ko na def télétratation te méttu ma moom du Mbacke di ko xamoon li woon noonu wane na fii ci Touba te duma ko may dara ba feek élection yi jot ñu ànd ak président Macky Sall jox ko majorité assemblée nationale te moom ab taalibe képp la doon fi ci dëkk bi loolu laa amul la may wax di ko di leen sant di leen gërëm yéen soxna yi di leen xamal ne ñëw nañ tey indi 500 millions yoo xam ne nanañ leen ko jàppalee seen kees bi pour ngeen wëlbatiku seen biir nanañ ñëwaat nag jàppale leen dolli leen ngeen jël seen carte électeur jox ko président Macky Sall wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaw li mooy remise bi téeméeri junni yaa ngoog lii laa gëm